dani sama waay da jàmm jaara wusu wala ma se jaara jurujub ah jabaram la lii moom moo ko moom waaw bu ko neexee def lu saf loolu la rek Sénégal moom fii moom lu nekk la ñuy wax bu ñu bàyyiwul nag ku jug yor téléphone wala ku jug yor kamera wala yor micro te demoo jàngi ji ko di ngeen tas dëkk bi ak ñi ma ko sañ a wax nag il nag journaliste dañ koy jàng du n'importe quoi am na ci yenn journaliste yoo xam ne wax dëgg yàlla ak yonent bi sama classe gi nga xam ne ay géwal lan woyaan rek lan man soo ma joxee micro ak ak caméra damay wax rek waaw pe yow pe ci yow moom yow pe ci yow ndax yow moom ba nga duggee ci fi nga yàq lépp yow moom ba nga ca duggee yow mbay nga ko yàq waaw affaire yi du question loolu affaire dañ koy jàng mm-hmm. dañuy dem xool ko jàng ko ba mokkal ko ba mën ko mais léegi moom da ngay mën a yuuxu mën a wax rek ñu teg ci télé yi bari wax rek ñu teg la ci télé yi ngay wax loo xam ne tegoo ko fenn yéen a taal dëkk bi de jaxase ngeen dëkk bi ruube ngeen dëkk bi waaw fii nag yooyu amu fi fii ñun ñu ngi sant yàlla bu baax. moom yow yow moom da ngay inventé yow yow moom da ngay inventé di wax rek ah? yow moom yow moom da ngay inventé rek xanaa du xanaa yow laa moom da ngay xalaat di wax rek Angleterre bi la moo tax non Angleterre bi mënu dem parce que tournée euh, waaw li tax demuma posé nga ma bu baax bu bu sax Angleterre bi li tax demuma euh, mënu dem Amérique wër àdduna bépp. ah ah mais tamit ñam-ñamali da ngay ñamali non non non non loolu amul foofu ñun amuñu Ramadaan ñun amuñu problème boobu ñun daan euh, tukki safa euh, tukki euh, kiiatuñu parce que dem nañ fépp ah ñun moom Ramadaan tukki moom dem nañ fépp ñun Ramadaan musicien yëpp yëpp yëpp koo ci gis wallahi azim barke Seydina Mouhamad amuñu problème tukki rawatina nag man nga xam ne 92 laa commencé tukki boobu maa ngi am 8 ah kon booba tukki euh, garaawul ba pare waale wërale ma fu ne ci àdduna bi dem naa fu ne waale fu ne la ma yóbbu naka ngay jàppe nit ki def passeport euh, du Amérique dix an Angleterre googu ngay tudd quatre ans cinquante quatre ans nga naan ko ay Angleterre demoo loolu du wax dem nañ fépp ñun mbay mbay moom fo maa Armando ñoom mere ci perke boo la kenn waxu waaw loolu ñun kan moo ñu kan moo ñu mere mbay kenn merewu mbay mbay dama neex ñun waaw mais gars yi sant bu baax nag euh, di kontaan ci yéen wax dëgg yàlla yàlla na yàlla yokk affaire yi yàlla xéwale affaire yi ci barke Seydina Muhammad ah di wax na ñun adduna euh, bi laay wax na ñëpp ñaanal yàlla waali billahi wallahi taala yi nekkul lu ma nekk musicien bi déedéet taxul may wax de jàmbaar la jàmbaar la gaynde la euh, bañkat la te boo ñu xoolee ñun ay musicien waali rek xam nga nit noo wax ci nit te feeñul ci yow mais n'est-ce pas li ñuy wax nii yéen ñii ñëpp ku ci nekk am nga ci euh, loo xam ne gis nga ko ci gaa yi waali bëggul ku mer bëggul kuy néewal nit doole kon lii mu dem wuti ji nga xam ne du ko dem wuti ji du pour moom de ama boo nekkee sa kër jàngoo moom da ngay defe ne disque d'or bi pour waale déedéet du pour waale disque d'or bi pour Sénégal la suñu ndam la ñun ñëpp parce que congolais yi yeeg nigériens yeeg pël Fuuta yeeg koy jël kenn gënuñu kon yàlla nañu ko yàlla jox ci barke Seydina Muhammad lépp lu mu bëgg moom waali ci biir xolam ak ci musigam yàlla bu ko kenn raw ci barke Sëñ Bamba jërëjëf i daani sama waay da jàmm jaara busub wala mañ jaara